présentation dañuy Olmo suba jàmm la bu 11h pile pile jotee fële ca Espagne gars yi dëkk bi dana wesaaroo catalan yi xam naa ne ñu ngi waaj lu rëy ndax lépp ci liggéey bi ma ngay mucc ayib ci revue de presse yi nga xam ni ñu ngi leen koy dindil maanaam Bayern na Munich décidé na euh, pour jalax kii di Alphonse Davies gars yi euh, bu leen taxaw benn yoon di xaar promo màggal gi am fële euh, ci sunuy magasin nekk fële ca deux di dixième yi foofee gars yi mën ngeen faa coppati seen bànneex wane fa seen ndëkk ci bagage yu yomb Alaaji Ousmane le plus jeune député borom dëkk bi ma nga leen di xaar alimentation générale Kën Bëgg Bamba euh, numéro 2 mi ngi toj li nga xam ne mooy dixième mag li ko wër ànd ceeg ki nga xam ni mooy le jeune député le tout nouveau jeune député euh, moom moomee nga xam ne bagage yu yomb yi moo ko yor tey dafa nekk ci promotion màggal gii ñu jëm di màggalu xaadim rasul gi nee na ma alaaji Malick fi mu toll nii bagage yi stock bi dama koo yokk yokk cere dool ñeex te lu mu jaayul baaxul lépp lu ngeen fa jënd yaakaar naa ne am na promotion bu mucc ay boo xam ne ma nga leen di xaar bagage yaa daari alimentaire manqué wun dara diwin euh, sachet euh, diwlin vingt litres ngeen gis ko ci image yi canette euh, nag daanaka eston ban fa teg ci taabal ji euh, soriwut ak conteneur ngeen gis bagage yi yaakaar naa ni lépp yemb na ci suñu place numéro téléphone yi moom ngeen di gis ci jeextalu vidéo bi bu ko defee lépp mën a def tawféex gars yi am nañ li nga xam ne mooy ndawal gu yomb goo xam ne loo ci bëgg mën nañ la koo peeseel suñuy gérant bokk gérant yi nga xam ne ñoo gën a mucc ayib ci dëkk bi maanaam di la teeroo ni ñuy teeroo buur bu ko defee lépp tawféex nga gis bagage yaa ngoogu ñu wan leen li lee nga xam ne mooy numéro téléphone yi mu ngi noonu alimentation Kër Bamba numéro 2 ngeen gis ko ànd ceeg Ousmane le tout nouveau euh, jeune député lii di numéro téléphone yëpp a ngoog bu ko defee euh, bu ngeen wootee man ngeen a faye wéef mën ngeen faye li nga xam ne mooy KP mën a faye Orange Money mën a lii di euh, Tigo Cash équipe bu mucc ayib leen xaar équipe baa ngoog gars yi équipe mel nii est-ce que am na ci ñuy liggéeyaloo nit ci biir dëkk bi ndax cawarte nga xam ne mooy mën a teeru client kanet ngeen gis ndox mi ay pack ak boisson façon bu ngeen bëgg am na fa ceeb ak diwlin en gros demi gros muy parfumé muy ordinaire muy lépp loo xam ne jëm na ci xeetu yu ngeen mën a dugal ci seen i waañ ci màggalu Tuubaa gi boisson yi nag amul benn boisson boo xam ne stock ban ci yor ngeen ci dara diwlin 20 litres yoo xam ne daanaka tudd nu ko ci vidéo bi waaye lépp mboole seen bu ngeen demee ci suñu place fële ca 10 deux nga xam ne bu ngeen fa wootee wala ngeen dox ak seen bopp lépp dana taw féexa soow na tamit soow yu mucc ay bi gone yi ak li nga xam ne mooy boisson sasa yi nga xam ne lépp daal daanaka ci mboole seen ma nga ca suñu place équipe bu mucc ayib di leen fa xaar gaaw def seen i commande diaspora sopp na bi tamit mi ngi ànd ak ñun ci euh, li nga xam ne mooy xibaar yi sopp na bi forum nag mooy terrain yomb te baax dégg jàmm loolee tamit mën ngeen di leen a woo euh, ci numéro téléphone yi affiché ñu ngi ci deux voies euh, ngenti immeuble sopp na bi ñu commencé nag xibaar yi bala ñoo dem ci revue de presse yi ak Manchester City ah yi mooy est-ce que duñ fay droit d'auteur lii di Galatasaray wala Fenerbahçe ndax yaakaar naa ne mooy moom fi mu toll moom nuroo naag mooy Fenerbahçe yi torop torop torop torop waaye nag mooy rafet na ki nga xam ne mooy équipe ba wala ñi nga xam ne ñooy wa équipe ba ànd ceeg kii di Erling Haaland mi seen leader ah, nga xam ne yaakaar naa ne sol na ko jàpp na ko lool dégg jàmm rafet na waaye gars yi dañuy almoo ci laay dem lu tax ma bëgg dem ci dañuy almoo rapidement nag mooy gone gi fi mu nii nag gars yi ah, maanaam contrat ba mat na sëkk moom dañuy almoo suba incha allah bu àndeek dogal borom bi fële ci réew mën naan Espagne daanaka ay pël lan soréwul nag moom ndax loolee la ñuy làkk soréwul ñoom nag bëgg nañ koo présenté te sax mooy am ndax décidé nañ te lépp nag yemb na ngir ñu mën koo présenté euh, public maanaam wan ko ni ko fii mooy sa kër ruq-ruqaan yaa ngi bureau yi nangam ak nangam fi ngay defee say entrainement ruurum biir néeg beeg euh, nga xam ni fi ngay defee say bagage ak lépp rek maanaam loolee dañ ko koy présenté présenté ko fi nga xam ne foofu la war a installé wu waaye nag moom fekk na comme moom ab euh, espagnol la du jar muy wut kër day dem seen kër rek maanaam daa def dugg ndax moom Espagne la juddoo fa la yoroo fa la màggee du am benn problème ci as yëglekaay moom it daanaka ñëw na ci ay euh, daw ak yu ci ne waaye loolu lépp dama fay bàyyi dem ca coppati yëglekaay ba euh, démb kile di Mbappé international français bi dugg si ci Real Madrid officiel na fi mu toll nii def na entraînement bu njëkk fii may waxee ak yow tamit mi ngi tollantiwaat beneen entraînement xam ba war koo a nekkaat entraînement boo xam ni bu ama am solo la te yëglekaay bi di aas nag moom gis ngeen ni moom te ji yaakaar naa ni euh, football bi bariwu ci ay tànk lool fu ne la dabaj dabaj jom fa ndax football bi yaakaar naa ni a koo daw tey waaye nag mënta bañ a ñëw ci li nga xam ni mooy mm, lii lee di euh, Kylian Mbappé yëglekaay bi di Mundo Deportivo La Corogne sama gars yi ne Espagne nee nañ mën naay bàyyi koreñ bi quoi àndunu léegi moom it dafa ñëw ci xëtu njëkk yi nga xam ne andi na ko mook Marca ak li nga xam ne AS ñoo bokk luñ andi ci kaay bi waaye damay dem ca suuf yëglekaay présentation bi war a am suba ak jàmm ak dugg si ol moo ñëw gaag lépp yëglekaay bi ci càmmoñ bi andi na ko yaatal ko bu baax a baax waaye yëglekaay bi gis ngeen ne ci côté ndijoor bi teg na fa Kylian Mbappé nga xam ne bu ndaandaat lu dégg jàmb ak équipe bi la di ma Madrid ñaareel bu entraînement tey ji lay am danañ ci dikkaat ci image ci kanam fii ak fukki waxtu uh, bu tegalee uh, fanweeri minute uh, ci kanam tuuti lu ko may wéy leen di topp seen bii di Aladji Malick TV jërë ngeen jëf